jël leen jox meewi comme meewi nag nga doo seetloo doom yi nag nag du juddoo du wasini balaa ñuy wax benn waxtu mm-hmm. nag bu ndaw bi daf dee jóg commencé di dox mm-hmm. balaa ñu wax ñaari fan ñetti fan mm-hmm. nag bu ndaw bi daf dee commencé di daw waaye doo seetloo doomi aadama du wasini balaa xale bi dee dem bay mun a toogal boppam bay mun a raamal boppam daf dee jël i weer soo doo jëlee meew boobu nga xam ne mala bi nga xam ne dafa jur rek doom bi nampa ko rek commencé di daw nga ko jox sa doom bi nga xam ne daf daa dafa jël waxtu balaa moo mun a jàng toog balaa moo mun a jàng raam ba ba a jàng ah, dox nga xam na bu see so loolu moo ñuy won nit ñi ne yàlla dafa defar meewi nit pour suñ xale yi ba pare yeneen meewi rek pour yooyu itam doomi mala yooyu ñoo dundoy ñu ñëw nag seet jigéen yi nga xam ne wala bokk yaay yi nga xam ne ñoom ñoo ay jullit lañ te dañoo oor waaye tamit dañoo nampal ci biir weeru koor euh, lan mooy health implication bi foofu noonu xale bi ndax dina am normal meew ndax euh, naka la moo mel compiyaa ko su fekkee ne du weeru koor ah, wax nga dëgg li nga wax noonu lu am dëgg la waaye ñu laa won li ñu mbiri nàmpal ah, yaay ju nekk ci jamono ju nekk mun ngaa nampal sa doom di nga gis ne réew bi nga xam ne sax dañ am bekkoor yu metti mbaa ñu am xiif bi nga xam ne nit ñi loolu lañ gisee da ngaa gis liñ làppee dañ dee mun a nampal seen doom yi dëgg rek li meew bi ak li yaay ji di lekk dañ ànd meew bi xale bi di nampa ak li yaay ji di ànd li yaay ji di lekk dañ ànd doo làppee sa meew bi dina wàññeeku qualité meew bi ngaa génnee tam dina wàññeeku. waaw because soo gisee ma laajte question boobu noonu. Mm-hmm. am nga su fekkee ne um, dama believe ni su fekkee yaa ngi lekk suba. Mm-hmm. Uh, yaa ngi ndeewoo mm-hmm. añ reer. Uh, xëj na nu sa ween bi di feesee. ak itam soo ooree. Uh, xëj na doo añ doo ndeewoo doo añ ba time ndogu. xëj na dina war a am ay difference la waaw dina dina am yenn différence waaye différence bi du mel ni comme ne because nga ma ma ma waxee ko nii man tam nga jigéen du biiree xam nga jigéen bu biiree dafa ah, peeseem daf dee yokku waxtu bu ne ko demee sa lopitaan dañ ko peesee peeseem daf dee yokku si nga lim dee peese bi lim dee yokku yëpp daf dee lay down la ñëw oo faat yëpp faat mooy ah, gerees ma moom na moom na yaaje di mooy moom na yaaje tabax sa yaramam graisse googu leen rek li ko lim dee def ñaareel bu dee aji demee nga xam ne wasin na graisse googu moom nañoo mooy jëlati du ëlbatiku ñu muy nekk meew mm-hmm. li nga gis ne ok li ngaa lekk tey ak li ngaa lekk ëllëg am na important waaye sa nutritional status comme li yaay noonu lekk jamono bi mu nekkee biir ba balaa weeri koor bi di ñëw moo dina am fayda te óorama na mën a yóbbu xale bi mm-hmm. lenn rek dina am jigéeni biir mm-hmm. ak jigéen juy nàmpal seen lekk dañ ko war a yokk jigéen bi nga xam ne daf dee nàmpal te liy togga meew bi liy defar meew bi sa yaram bi tam mm-hmm. lekk la waaye comme yow li nga laajte nii mm-hmm. dëgg la mm-hmm. ah, meew bi dina xalaat wàññeeku si jamono weeru koor ne te lekk yaay ji wàññeeku na foog na loolu moo dee dina tax sax ah, duñ tugga si mbiri lan na diina ji wax lan na islaam wax waaye foog naa doo demee si sa yeneen waxtaan ak borom ñi nga xam ne ñoo yore mbiri diina ji di dinañ la dee woon ne weeru koor am na ñuñ wàcca ñaareel mooy jigéeni biir yi nii ak ni nga xam ne dee nampal alxuraan dak mbaa yàlla rek moo xam lu tax mu ne am na daf leen daf leen wàcc waaye comme li nga wax ni dëgg la duñ demee bi nga xam ne mu nampal te ni lekkuloo si bés ba yëpp ah kon meew bi nga jénni fu mu jaar dinaa wàññeeku waaye du wàññeeku wàññeeku bi nga xam ne dina la lor mbaa mu lor xale bi li ma askan wi rek mooy jigéen ñi nga xam ne ñu nampal Ah, mooy borom kër yi jëkkër yi nijaay yi goro yi si kër gi ñu góorgóorlu ñu dimbalante jigéen ñi ah, jàppale leen surtout si mbiri exclusive breastfeeding bi gis ne nampal suñ cosaan la ah, cosaan boo xam ne la lu fi yàgg la neen góorgóorlu li ñu ko suñ maame joxe woon jox ko suñ yaay ñun tam neen ko aar jàppee ko nunu leen ba nga xam ne suñ doom yi ñun tam ni leen ko jël ñu jox leen ko ah ku bàyyi sa cosaan rek toppa cosaane jàmbur lu borom ñëwee du ñëwee jël si cosaanam yow di nga nekk sa cosaan de ah moo gën nag moo tax ma ne la nampal gi neen ko jàpp bu baax a baax a baax gis ne xale bu juddu biir Gambia fii nii ñu nampal la juróom-benni weer luñ la jox ndox du ñëwee ba si juróom-benni weer yi rek foofu jot na pour ñu jox xale bi ndox ba pare jox ko yeneen lekk. moo koy betee rek ah, comme si World Breastfeeding Week bi lañ nekk rek ah, jamono ji naka mu itteel ñu ñu génn naka waxtaan naka yaay yi nga xam ne ñoom ñooy nampal ah, ci weeri koor bii nii surtout parce que loolu moo waral naka tey suñ topic bi ñu laaj leen ñoom naka lañ gisee nampal surtout si biir weeri koor. Abi Diallo. Abi naka la or mel ak nampal si biir weeri koor bi. or mel ak nampal si biir weeri bi. Mm-hmm. neex de man de neex si man mm-hmm. waaw. jox ma benn problème moom. yow sa doom yi si lan lañ tool si ñaata weer wala. am nañ teen moom. Hmm. dis moom ni ñoo am teen moom. yow lay nampal góor nda jigéen da ay siix. ñaari jigéen. fii waaw. yow amuloo benn problème daal. amoo benn problème. de mun a oor nga nampal gaa yi te doo dee am benn problème. waaw dama dee oor duma dee am benn problème. te sa ween dinañ am soow comme nuñ ko war a amee. waaw dina am soow. man kay dama dee nampal. Mhm. te dama de oor waaye. Mhm. gisuma foofu benn jafe-jafe nag. Hmm. waaw. Hmm. doo dee fil dara daal. déedéet. Ah. du ma dee fil dara xanaa. Mhm. comme su ma ooree nii. xale bi suy nampa suma ween bi. su yaagee di daf dee la. soo dama de fil ne lekk bu ma defut. loolu moo tax xale bi ween bi. li fi nu feesut daal. su loolu amee daf dee mel ni comme sa soo bi moo dee wàññeeku daal. waaw suma soo bi daf dee wàññeeku. waaw waaw loolu dee tere da ko dee jox normali. waaw dama ko dee jox normali kay waaw. Hmm. Hmm. ok baax na jërëjëf. ba tey rek mbokk yi amuñ si loolu de dañ dal di dem naka waxtaan naka uh, ñi nga xam ne ñoom tamit ñooy yëngu ci wàllum diine bi ñu laaj leen tamit uh, diine ak nampal uh, surtout nag si weeri koor. tey nag ah, ki ñu fi am mooy imaam Ayuba Sané ah, moom nag ah, moo ñoo leeralal lan la islaam wax ci yaay bi nga xam ne mooy nampal ci biir weeru maa ngi leen di nuyu nuyu islaam moo nekk asalaamualeykum wa rahmatulah wa barakaatu eh, li nga laajte ni eh, lu baax la islaam nekk na diine bi nga xam ne diine yusur diine la bi nga xam naa lorul kenn. diine la bi nga xam ne jàmm rek la andi kon jàmm boobu noonu loolu moo tax mu wax si alquran mu ne mu wax si alquran mu ne xamalatuhu ummuhu kurhan wa wadaatuhu kurhan wa hamluhu wa fisaaluhu thalathuna shahra kon jigéen boo demee ba nga sëy ba yàlla subhanahu wa taala si kattanam mu may la doom kon doom dafa nekk lu baax la si doom aadama parce que yàlla subhanahu wa taala amu ko kon yàlla subhaanahu wa taala soxlawul ko nag waaye doomi aadama daf ko soxla loolu moo tax boo demee ba sëy ba yàlla subhaanahu wa taala si kattanam ak man-manam mu may la doom kon war ngaa sant yàlla bu baax sant yàlla bi nga xam daal subhaanallah parce que am na ñi nga xam daal bëgg nañ ko waaye amuñu ko am na ñi nga xam daal ñu ngi dem fu nekk di sakku ñaan pour naka la ñu amee doom waaye amuñu ko waaye yow nag yow bu yàlla subhaanahu wa taala mbaaxeel la ba nga am ba am doom kon lan nga war a def mooy yàlla subhaanahu wa taala mu ne nga nàmpal ko dangay gis ni nàmp si eh, si ween yaayam moo gën a am solo di di ko jox leneen li nga xam ne lu dul loolu loolu moo tax islaam kon jigéen ki nga xam ne daal dafa dem ba wasin ba mu am doom kon moom islaam li mu gisee ci euh, affaire am mooy moom bu dee euh, bu wooree dina ñàkk euh, kii sow kon moom lan la war a def kon moom dafa war a lekk ba suur. mu lekk li nga xam daal loolu mën na ko jox euh, sow bi nag pour xale bi mun a euh, nàmp waaye dëgga la weer la nga xam daal jaamu yàlla la waaye loolu tamit dafa bokk si jaamu yàlla subhanahu wa taala parce que sa doom boobu noonu ku muy jëriñ suba yàlla rek moo ko xam kon nga nampal ko ba mu xam ni kii mooy euh, sama yaay nga xam daal nampal na ma loolu lu baax la si shariatu islamiya loolu islaam moo ñu ko sant loolu moo tax si weeru koor ñi nga xam daal ñoom am nañ doom si weeru koor yi kon war nañ ragal yàlla daal bu dee yaane bu wooree dina ñàkk euh, soow bi nag wala du mun a am doole du mun a am kattan pour mu nampal doom bi nag kon moom yàlla subhanahu wa taala tër yaane tegal ko li nga xam ne du ko du ko mën loolu yaane lu muy def mooy dafay dem lekk dafay dem naan dafay dem yaane mu lekk li nga xam daal dina mun a am sow pour mu mun a nampal doom bi comme islam mu ko bëggee incha allah boo mbokkaay bu loolu soo rek ñu dal di dem si fànna bu am solo bii ni di suma xol fu ngeen dee jooyte seen tawati xol yi ñu dal di ànd ak Ramatulaay Jaalo ñu seet nag tey leetar bu ñu amal suma xol nag tey moom leetar boo xam ne mu ngi jóge ko si benn jigéen boo xam ne moom ñaari waajuram yëpp a gaañu te papaam bu ndaw moo ko yar mu nekkoon raki papaam léegi bu nga ko yaree ba nga xam ne tollu na euh, tollu na jamono boo xam ne war naa mun a sëy mu mayee ko waaye bu nga ko mayee nag ba léegi mu ngi euh, mu ngi